li jëm ci suqali sa gox taxaw sa askan ak lu jëme sa réew sa kanam ki fi nekkoon premier adjoint au maire ci jamonoy li di wuyoo ci turu Ajaratu ndey Fatou Niang musu ci des gannaaw taxawaay bu rafet boobu ak dëggal gi nga xam ni ràññee nañ ko ci moom ngir xeexal askanam moo waral ñi nga xam ni ñoo nekk ci bopp maire bi ci jamono yi ki ko jiite di abdul Aziz Gay ànd ci ak adjoint au maire Chérif diata daal di koy delloo njukkal ci li nga xam ni moo jëm ci cérémonie de lancement des activités culturelles et des arts de la commune de Wakam te ñu amaloon ko foofa ci monument de la renaissance africaine niki samdi fukki fan ak juróom-ñett ci weeru novembre bii ñu nekk. ngir delloo ko njukkal nag moom la ñu defoon marraine d'honneur ba di loolu nag ci jamono yi fukki waxtu ak juróom-benn ci ngoon gi kii di ajaratu Ndeye Fatou Niang daan na ànd ak forte délégation ak njabootam. bayiko kërëm di fas yéene wutali fi nga xam ni mooy monument de la renaissance africaine dañ fa doon amel xew-xew ba waaye laata muy génn kërëm daat na roto ay kàddu ànd seek njabootam. waa bés bi li ko waral tey ak fi ma jëm euh, waa commune commune Wakam bi euh, section culturelle ñooy def seen manifestation tey jël ma comme euh, marraine. fa ant ak sama amna na ñu ma jiitu ñu nga fofu di ma xaar wa WPP les femmes leaders ñu nga fofu di ma xaar waaw fas yéene dem te obi ma te jappelé commune bi jappelé Chérif Diatta particulièrement bi nga xamantene mom moom mooy yor euh, commission bo seeni fay jonn gëmé ñun ñoo and ndox soxna fagne diko ko ci sargal biñ koy sargal fele ci wala monument de la renaissance waaw di sant yàlla wax dëgg yàlla macha allah ba ñu dalee ànd ak moom ba tey amuñu benn problème ak moom moom lu mu xew rek ñun lay oo ñooy ñëw ñooy fay defaral yëpp ay besoin waaw sant rek te liñ koy defar nii waa macha allah lu ko lu war la mu nekk woon ci mairie bi macha allah zéro faute

waa ñun dañu ñëw man Ngoné laa tudd daal di gunge ci sama yaay ci eh, événement bi nga xam ne ci marraine yi la bokk donc fas yéene ko gunge rek xam nga eh, ci ci événement bi muy ku baax nag ma ne ko muy sama yaay ju baax nag lu ma woo ma wuyu si ko di ñaan bës bi yal na yal nañ ci dem ci jàmm ak salam delu ci jàmm ak salam machallah gis ngeen ko ñi ngi nonu di waaj euh, départ euh, ak euh, délégation bi fas yéene wutali fi nga xam rek moy monument de la renaissance ngir fekkee li nga xam rek moy cérémonie de lancement des activités culturelles au niveau de la commune de Wakam. jugé sa moroom te bul di suufeel sa moroom sa njortu war na rafet oo oh, ci sa àdduna te nu jëme suñu xol yi te defaraat suñu toogaay ndax li ne ci xol yi oo oh, mooy feeñ ci jëf yi yow li nga bëggal sa bopp xam-xam rek ak am-am ndax sa jëf rek li topp xool ci moom ndax ay jikkoom tere ci moom ba mel ni moom moo gën nga teg ko sa bët ngir mu ñàkk li mu nga am keneen du am mbaa amul keneen du fi am c'est pas positif Diatta bi nga xam ne tey moo yor commission bi def ma marraine day sama doom di lépp ci man ndax defe naa ne ba mu ñëwee sama kër la dal wakaam def ma yaay def ma lépp xalaatuñu woon ne daañu daje ci commune bi ba bay bokk maire bi yaay jooju nag mu gën ko dëggal nekk ak man nekkin bu rafet ba ñu jóge fa mu ñëwaat dellusiwaat siwaat ñu ñëwaat encore ak Aziz Gueye mu gën ko dëggal jox ma leppam lépp lu muy def da ciy waxtaan ak man laaj ma sama avis kon nag vraiment gor la maa ngi koy ñaanal ah li mu bëgg moo ko xam yàlla na ko yàlla defal ndax fi mu teg yaa waaye juróom bu jigéen rek foofu la ma teg toggal na ma di ma tibbal ma lekk di ma defal lu ne li ma defal yëpp sax mënu ma toog fii di ko wax avant ñu yëg si fii ci mairie kon lu mu fi am tey commission bi ba am fi teranga ji moom moo ko liggéey kon nag yàlla na doon réussite totale ci moom waaw yàlla buñ ci réussite dara yàlla may ko ndam lu kawe euh, ba déwén ñu gën koo préparé mu gën a neex incha allah soobee yàlla te yàlla na ko samay doom ñoom ñëpp ma jege ko ci euh, seeni jonn bale di sama rakk ñu lépp lu ma mu nekk ceeg man ànd ak man ak sincérité moom ñi muy àndal xam naa ñooñu dañoo ñëw dañoo ñëwagul wala ñu jiitu ma ak sama doom jaar yaay mooy sama taaw moom it taxawaayam ci man li naan taaw njëkk judd njëkk a baax ñewloo rek def mu ak ju baax Kunta ak sama benen frère Cheikh nya ñu di ma gungé di ma jappalé ci bis bi may gërëm nak particulièrement sama doomi woné o ben Sy Ndiaye di xalé bu am jom xalé bu am fit may ak mom ci séminaire yi gis ay activité bi muy def dama doom bëgg xalé bu am bu am décision xale bu am engagement looy def rek nañ ki am engagement loolu laa gis ci moom moom it mu doon ku neex a bëgg bëggal ma boppam rek def ma yaay def ma léppam ma di leen gërëm tam di leen sant tax depuis ci bëccëg ba léegi ñu ngi fi yàkkamtiwuñu defuñu dara te su ma toog ñoom ba minuit dañuy toog ba minuit duñu wax daal seeni ànd na maag moom Touba ci sant fu ma jëm ci kër sëriñ si samay mbokk damay ànd moom mais yar la koy wane ak tegg ma di leen sant nag di leen yàlla ñoom bare mu ngi noonu mu nekk ay kàddu yu témoignage yoo xamante ni ji bàyyeekoo na ci madame la maire ajaratu Ndeye Fatou Niang euh, ci li nga xam ne rek moo jëm ci Euh, sargal bi nga xam ni sargal nañ ko ko jëme ko ci euh, li nga xam ne rek mooy taxawaayam bu rafet euh, ci commune bu Wakaam mu nekk loo xamante ni ji li Olof di wax tungu ni du teew ñuy nataal mu yëkkati ay kaddu yooyu jëme ko ci Aziz monsieur le maire waaye jëme ko ci tamit ci doomam nga xam ni kenn la ci moom nga xam ni seen jaar-jaar démb la woon Serif jaata wala démb la woon tey door a dikk mu nekk koo xamante ni ji euh, ànd naa ak moom ci lu bare bare bare ba tax tey mu ko ci bu am solo ci biir commune bi ak bañ gi mu doon bañ ak euh, barka démb nga ni dara luy nasaxal li nga xam ne rek mooy commune bi ba tax na tey ñu gestu daal di koy jox cër boobu ba def ko bu cérémonie de lancement des activités culturelles au niveau de la commune de Wakam. sa moroom te bul di suufeel sa moroom sa njortu war na rafet oo oh, kii sa àdduna te nu jëme yaatal suñu xol yi te defaraat suñu toogaay ndax li ne ci xol yi oo oh, mooy feeñ ci jëf yi yow li nga bëggal sa bopp xool ci moom ndax ay jikkoom tere ci moom ba mel ni moom moo gën nga teg ko ngir ñàkk li mu am yow rek nga am keneen du am mbaa su amul keneen du fi am positif te doy na gannaaw waxtu julli timis kii di madame la maire ak fartu délégation bi mu àndal daal di ñuy wutali ci barab bi nga xam ni fa doon amal xumbateef yi muy monument de la renaissance africaine ba mu fa yegsee nag tertu nañ ko tertu bu rëy ànd ceeg kilifa yi nga xam ni teewoon nañ ca barab ba ku ci mel ni El Hadji Youssou Ndoye jaraaf de Cap-Vert ak monsieur le maire Abdou Aziz Gueye nekk maire Wakaam ba mu yegsee nag dalal na ko saafanteeg moom installé ko ci loge officielle bi nga xam ni fa lañ doon dalale kilifa yi ci noonu nag kii di madame la maire jot na rotal ay kàddu wane mbégte ak bànneexam ci darajaal bi nga xam ni darajaale nañ ko bés bii nga xam ni lu rëy la ci biir commune Wakaam. waa may kontaan ci teew bi ma fi teew ak honneur bi ma fi jox ma di ci kontaan bu baax. dikkoon nga fi wakaam ndax ki ma ko jox dama ko xam dama koy yar ba ma koy yor xalaatu ma woon ne dañ toog ba bokk mairie ndax booba mu ngi door a jóge Casamance bi ñëw may kontaan nag ci bisam bi xam ne li mu am tey jomb ko moo ko liggéey ndax mënoon na ma fàtte bu yàgg dafa am kóllëre mënoon naa jëkk sama kër maa ma ubbil ko sama kër yar ko mu toog ba am dara fàtte ma mais fàtte ma balaa def tàggu ma dina waxtaan ak man nëbbu ma daraam kon bis bi mu am tey wakaam la bett mais man bett ma ndax dafa liggéeyal ndeyam kii dafa toggal yaayam dalaa daan toggal yaayam comme jigéen comme ni jigéen di def ci kër moom la daan defal yaayam kon newon na ko diga am teraanga lu mu yagge yàgg parce que kenn du teral sa yaay di toro da teral yaay kon nak da koy ñaanal bisam bi yalla ko jiitu muy premier bis ci mom yalla ko def ay bis bis ñun ñepp ñu fekke ko tal ko cer bi ma jox nak dama ko nangu ak alhamdullahi rabbil alamin ndax dama ci kontaan dafa mel ni tey sama doom do xam mom ñu waxtane ko tay ci suba en panel Aziz Gueye di maire ma yumpaañam di léppam mu respecté ma jox ma cër am fu ma teg ci maire bi ñu jox ma cër biñ ma jox kon nag maa ngi leen di sant ñoom ñëpp di leen gërëm di gërëm waa maire Wakaam yëpp conseiller yeeg adjoint yeeg ñëpp maa ngi leen di gërëm ah, di gërëm nag Wakaam gépp ndax man Wakaam ma bëgg kenn bañu ma te loolu ci dëkk ñëpp bëgg la la ñëpp am fu ñu la teg da ngay sant yàlla maa ngi sant yàlla baax sant samay waajur di sant yàlla di julli ci yonante bi di ñaan yàlla fan bu gudd ak wér gu yaram ba léegi ñu di ko def ay ati ati kontaan naa Ndoye Jaraaf koy gërëm bu baax gërëmu ma ko sax yaayam laa gërëm ndax yaayam a ngi ci àllaaxira yaayam daf ma ngemboon boot ma teg ma fu kawe di ma jàppale dafa mujjee wax ak man deux heures de temps la mujjee wax ak man ma yëkkatiwaat téléphone bi dama ko jëlee man dama nelaw na balaa moo nelaw waxtaan nag man deux heures deux heures après mu nelaw lu mu xëyee dina ma ko wax lu mu yendoo dina ma ko wax yaayam muy sama frère may magam mu respecté ma moom it jox ma cër sama yaayam tegal mu teg ma ko xaram euh, kon nag euh, Youssou Ndoye tey lu mu am ci wakaam rek yaayam bi jëlee jomb maa ngi koy gërëm di ko sant ko sant mu nekk ak man ci waxam. madame Binta Gueye adjointe au maire de la ville de rek dañ ne li yëngu lu ne la ko yëngal ak ëpp doole te Ali dafa dajale te lu rëy si Wakaam dafa lu rëy si Wakaam te gis nga bés ñoo fekk sa monsieur le maire Aziz Sy Diop fekk fi suñu janaaf bi Cap Vert fekk tout parti yépp a ngi fi parti yépp y'a toutes les parti opposition pouvoir yépp a ci kaw tudd bi te loolu lépp moom moo ko def kon dafa rëy te loolu dafa jafe léegi kon moo xam benn bopp la kenn mënu ko xaar ñaar di gërëm monsieur le maire sama frère la sama lépp la sama xarit la jaraaf bi mooy sama jaraaf mooy sama jaraaf kon Wakaam en ah, miniature tey bi la bokk fii. kontaan naa bu baax jërëjëf. may sant yàlla di julli si yonent bi waaw Fatou moom day sama lépp waaw yaay la ci man ndaxte bi ma nekkee tuut tànk suñu yaay génn àddina moo ñu yor ba ñu toll nii moo tax daal vraiment maa koy ñaanal yàlla defal ko jàmm defal ko xewal li mu wut ci politique bi yàlla defal ko. defal ko mboolem jullit. waaw mbégte rek monsieur daal yal na yëf yi yokku daal incha allah rabbi ba lépp lu ñu ñëwee daal yàlla defal ko lu kawe njortam ñu ñëpp ñu fekkee ko ànd ak moom wér gunge ko incha allah si barke yonent bi sallallahu alayhi kontaan naa bu baax daal. ba mu daanalee kii di El Hadj Youssou Ndoye jaraaf di ka Vert moom it yëkkati na fa ay kaddu jëme ko ci taxawaay bi nga xam ni ku si nekk war nga koo am ci biir réew mi rawatina seeni gox. que ça looloo ma si looloo ma si neex que ñëpp ay bokk lañ mag ñi dañ wax ne lu dul jàmm jàmmaa ka gën mag ñi mag ñi dañ wax ne dara waruñoo te suñu bokkee ndey bokk baay xam nga ku dem ay ay yooyu moo ñu ngi doon doog am euh, kii euh, gars yi way nañ fi benn way sunu mbokki géwél yi yéen waa Sénégal bokkale ndey bokk baay waaw buñ bokkul ndey bokk baay naka la def dañuy yàq mu am lenn lu nekk parce que xale ma gisaat benn affaire bu am muy réew mi ni kay crispé woon noonu parce que gisuñu woon di kii ceeb yi jigéen ñi togg temps yëpp mënuñoo yëg sap cafka gi pourquoi parce que xale yaa ngi fiy jóge dem ci géej gi di dee nit ñuy jooy ku nekk di triste léegi nag fi mu nekk nii moo tax réew mi ñu war a indi ay xew-xew yu mel nii pour que xale yi nandane ku dem gaa yi ji gaa yi bi ginnaaw te buñ ko jeexee doo si am de fekk ya nga place porote fële sa kaw nanu tok japp ci yalla xaar yalla bo xaaré yalla yalla ya fekk seul may ñaan dal pour que vraiment xalé yi ak ah, ñu mel ñu jàpp ne yàlla ya mooy sottal pétrole bi yalla ya naka yalla sotal ba mu doon seen wërseuk ku dem ku dem dubai di nga xamné yalla benn la waaw yalla dal Karim la dal joolaa lañ la wax si senegal kuti ma ko wax jaraaf jaraaf yu sunde wax ko de kutum dafa wax ne joolaa séeréer tukulóor ñoo bokk maam boo xoolee ci métissage man jaraaf mën naa taxaw fii ne lébu laa mais métu ak tukulóor laa ndax dégg nga wax bi ñoom joolaa si suba ba ma déggee ñu ñu mbiib seen mbiib yooyu sama yaram dafa daw ma kontaan dama bëgg depuis suba si ñoom laa échoué ba pare door a ñëw fii toog mais lii wóor mooy ay mbokk kese lañ mag ñi loolu la ñu wax dañ wax ne lu dul jàmm jàmm ak gën waa ngoon jàmm ñun suñ ko naree ñàkk duñ ko seet ñu koy def yàlla daal borom ndimbal la yal na yàlla jàppale xale yi.

ngir gën a ñaax ñi nga xam ne ñooy askanu wakaam ak ñi fay yeewoo ci li nga xam ne mooy njariñu cosaan ak aada tout le conseil municipal de wakam di dalal euh, gan di dalal di remercier ñi fi nekk ñëpp di si teg di si commencer si remerciement yi le jaraaf Youssou Ndoye bàyyi na ay iteem ñëpp ñëw fulaal bés bi ànd ak délégation bu am importance di remercier euh, tous les adjoints au maire et tous les conseils municipaux Je remercie les délégués de quartier ñoom ñëpp ñëw nañ di remercier les femmes transformatrices ak ñi ñu les ñëpp man euh, en tout cas ñi fi nekk ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant euh, di wax ne Wakaam comme ni ñu ko waxee sànq kenn mënu ko délégué dans la division ñun dañ nekk fii pour euh, liggéeyal Wakaam

indi ay panélistes ñu xool visiter le patrimoine culturel et historique de Wakam euh, panélistes yooyu dinañ oowaat tous les acteurs culturels pour ñu jox ñu benn calendrier culturel calendrier boo xam ne day dem ci at bi yëpp par exemple mën nañ ne telle date dinañ def ay tel telle date dinañ def ay tànn tel telle date dinañ def ay euh, panal et cetera donc lañ bëgg acteurs culturels yi nekk ci Wakaam yëpp réfléchir naka lañ mën a gisee seen bopp ci Wakaam te nag euh, la culture mën nañ ba culture boolewaat Wakaam yëpp parce que culture suñu cosaan la suñu aada suñu suñu la donc li ñu am comme euh, comme bien euh, culturel il faut que ñu suñu suñu maam yi liñ fi bàyyi il faut que ñu sàmm ko bokk nay bokk bàyyi Euh, pousse bi bañ a ree suñuy loxo cest ñu ñu ñu nekk ay frères nekk ay sœurs def Ouakam mu nekk benn euh, cité boo xam ne ñëpp dañ fi dund ci jàmm ak salaam et mën a euh, réussir suñu programme yi ñu yi simba yëpp dañuy ñaan tànn loxo ñëpp Ouakam pour ñu ànd lu ñu sumba ñu bokk liggéey ko ensemble pour que ñu am résultat yàlla dimbali ñu donc ñu ngi ñaan à travers la culture à travers le tourisme nit euh, ñi réfléchir ci naka lañ mën a andee euh, lu lu waay am lu rafet rek ñu teg ko ci table bi pour ne ah lii kat mooy culture Ouakam ce am na yu bari ñu fi commencé dégg donc loolu laa bëgg mu mu law te ma euh, jeexal te remercier mu organisateurs yi organisateurs yi lii rafet na c'est une parce que bu ñuy defaraatee incha allah dina gën a neex te dina gën a dina gën a réussir incha allah donc euh, maa ngi leen di euh, gërëm encore une fois euh, di leen masawu coono si li bu xaw a guddee di remercier les organisateurs ak jërëjëf merci beaucoup jërëjëf ci bés bu am solo bi nga xam ni dañ ko jagleel cosaan ak aada rawatina li nga xam ni mooy communauté lébu li ci gën a am solo te ñu ràññee ko mu neex ci xol yi lool mooy participation bu rafet bi nga xam ni communauté jola alpulaar séeréer ba ci soose yi ñoom ñëpp def nañu benn say ngir wane ni Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar Thank you. ढुयाया कारो आए ढुयाया कारो ने अपना असीस ढुयाया कारो Thank you. Thank you. gannaaw ba ñu jeexalee xumbateef yu am solo yooyu te ñu jagle woon ko caada ak cosaan rawatina communauté lébu kii di madame la maire ajaratu Ndeye Fatou Niang àndoon nag forte délégation bi nga xam ni yi ko ëmb mooy ONG Noorul Huda te ñu def ko présidente d'honneur ba ànd ceeg ki nga xam ni mooy Serigne Xaali mbake nekkal fii ki nga xam ni mooy xalifa général Abdou Karim mbake borom dër bi niki noonu nag dem nañu daal di def ay visite de proximité dajeek ki nga xam ni mooy monsieur le maire Abdou Aziz Guèye bañ fa jógee amal nañu jataay ak euh, El Hadji Youssou Ndoye jaraaf di Cap Vert niki noonu monsieur Alioune jiite kuréel gi ñu tuddee Jom Center ak ki nga xam ni mooy Mouhamed Nabi Guèye nekk foofa ca mosquée de la divinité ca Wakam nga xam ni kenn mënul tudd gox bii di Wakaam te sa xel demul ci barab bu sell boobu nga xam ni suñu maam yi ñoo ko fa samp te muy dundal wàllu diine. bul sa njortu war na rafet oh, gannaaw doxum nemmeeku boobu nga xam ni kii di madame la maire Adjaratou Ndeye Fatou Niang ànd ceeg ONG Nourul Huda àndoon nañ jiko jëmale ci kilifa yi nga xam ni am nañ yaakaar lool ci ñoom ci ñu jàppale askan wi rawatina ci wàllu social nga xam ni moom kenn jiituwu ko ci loolu lépp boo ko boolee muy dellu di gën di firndeel taxawaay bu rafet bu am solo bi nga xam ni kii di madame la maire Adjaratou Ndeye Fatou Niang mi ngi koy dëggal ci kanamu askanam ngir jàppale leen ci biir ak ci biti waaye tamit di leen xeexal seen àq ak seen yelleef ci fànn bu mu manti doon